à a à faut a sama gars Mister depuis les États-Unis d'Amérique côte ouest les doon sama gars côte ouest gis ngeen ma maa sol mayo, Sadio Mané ñëw Wahti, wax ci Sénégal Lapoto nation ou Sénégal la nation de Lapoto lan Sénégal tardé le Sénégal dit dem.

mais sénégal yi dañuy toog fu ñuy toog waaye bu ñu waxee Sadio Mané mi nga xam ne moom laa sol mayom gaañu na mu mel ne àdduna mi ngi waaj tukki Sénégal lu tax parce que Sadio Mané ah moo moo ñu war a yóbbu coupe du monde xam nga bu ñu waxee Siteu contre Papa Sow xale yi vraiment mel ne nu mu tuddati loolu rek moo am importance ci àdduna mooy foot euh, bëri ak football. léegi Macky Sall di def lu ko neex di def lu ko neex buñ jigee di xas makki Sall mais man chaque jour dama leen wax ne waru leen xas Macky Sall bu ñu gisee ku mel ne Jiji Akhenaton di xas euh, nu mu tuddati sëriñ yi ma ne leen bàyyi leen sëriñ yi ngeen di xas lapoto yi ngeen war a xas parce que lapoto man terme boobu ci Akhenaton laa ko gën a déggee muy wax laa république des des lapoto man ma wax lapoto nation.

Mamour Diallo sama xarit la ñu bokkoon classe ma dem ba tuddee ko doom mais gis nga ba ma demee Sénégal def fa un mois Mamour Diallo dafa fay téléphone am mënatuma ko sax jot xam nga jéemuma contacter te xam naa ne xam na ne maa ngi Sénégal lu tax parce que xëy na li may ànd ak président Sonko moo tax xam nga sama xarit bu baax la dama koy jéem a comprendre man sax vraiment gisoon ko sax booy xool du ma arrangé ci benn côté

Mamour sama xarit la dama koy xelal suma ma gisee ne affaire Adji sar bi affaire enregistrement bi def ba mu génnee ba léegi Mamour daf ci dugal loxoom ma ma ma koy jéem a xelal ma continuer di def sama vidéo parce que man activiste la waaye d'un autre côté aussi du ma fi nekk di xalab Mamour Diallo du ma fi nekk di xalab Macky Sall sénégalais yi laay xalab parce que yéen yéen a fi nekk nekk ay lapoto di déglu sëriñ di déglu sëriñ di déglu sëriñ gëmu leen dara lu dul ay affaire caaxaan ay affaire football ay affaire làmb Sadio Mané mi gaañu boo demee yàlla ci boppam moo leen bëgg a won ne coupe du monde bii ngeen yaakaar waru leen tal coupe du monde ndax dëkk boo xam ne mi ngi waaj tàkk jëppeet ci leen troisième mandat dëkk boo xam ne bu ñu jógee di wax ne euh, dund yi dafa cher lépp a cher ah courant lépp ñu ne Macky Sall mi ngi ciy a def dara mais est que def na ci dara au lieu xeex loolu déedéet. nit ñi dañuy tok ah ku nekk yaangi sétane sa pod et Marichou deug na amatul sax wala ngay sétane euh num tuddati yenn série di ma wax ay awa banay def na ah fecc na li wal sekk li et cetera et cetera bu ñu jógee nag di euh activiste yu melni man parce que dañ né lan moo tax tu len Macky Sall mais nga japp Macky Sall diko saga diko xass bañu japp le na la rap ci kasso bi kenn dula faalé ana Karim Xurum Xaq léegi mu def ñaari weer ci ci ci kaso bi ana Cheikh Oumar Diagne léegi mu def ñaari weer ci kaso bi te moom dañ ko fi téewoon ah ngeen nekk bi di xeex ak ay nit yoo xam ne est ce que jar nañoo xeexal nit ñoo xam ne bu leen sëriñee toog leen seen kër ñu toog seen kër def ngeen fi ay marche woote kenn génn Cheikh Bara Ndiaye gis nga ko temps yi mi ngi nii ndara créel boppam problème ndax Cheikh Bara man gëm naa ne moom moo ndara topp ci ñi nga xam ne Macky Sall ñooñu leen dara jógal daal di leen fexel dëkk nag

looloo tax ma ne Sénégal ay dëkku làppato lañ man looloo tax ma ne ma ne dootuma rey sama bopp nit ñi jaruñoo xeexal yenn xeex yi nit ñi di ngeen dof doflu dof doflu ba Macky Sall jaar seen kaw imposé boppam man mandat boo leen bañee troisième mandat te ngeen di wane ne yéen bugg leen troisième mandat mais bu ñu gisee Sonko wax na ko Macky Sall am na 45 pour cent man loolu inventé wu ma ko de Sonko discours am bii mujj passé ba muy wax ci affaire rapport bi ah. rapport gendarmerie nee na Macky Sall am na 45 pour cent maanaam téeméer boo jël ñeent fukk juróom yi sénégalais yi ñu ci bëri ay séeréer lañu ñu ci bëri ay ay xalpulaar lañu Macky Sall la ñu àndal ba léegi te pour pourtant dëkk bi dafa cher Macky ngi tëj Macky ngi def lu ko neex même c'est vrai que am na lu mu liggéey mais ñoom Macky la ñu àndal kon loolu ñun ñu tamit il faut ñu nangu ko il faut ñu nangu ko. moo tax nag ma tuddee sama bopp euh, euh, euh, Sénégal dafa bëri ay làppute dafa am nit ñoo xam ne est-ce que ñoo nañoo xeexal man mii di wax ak yéen am na sama benn mag boo xam ne Macky Sall la votel ba ma demee Sénégal Macky Sall la votel te temps mi ngi këram des fois day am problème lii paral laa woo ma est que mën nga ma jàppale ci lii wala laa mais pourtant ay doomam am na ñaari doom yoo xam ne liggéeyuñu goruñu yettuñu te pourtant Macky Sall la votel man nag su ma xoolee loolu yëpp dama naan xeexal naa Sonko ba am ba defal ko mille vidéo Sonko laa bëgg mu nekk président 2024 te Sonko wax dëgg xeexal naa ko ak man ak samay morom ba mu nekk maire Ziguinchor ba mu gagné assemblée nationale léegi lan moo ko dese 2024 2024 nag est-ce que dañuy toog dëkk bi tàkk jëppit déedéet duñ bëgg ñu loolu duñ ñoo war a toog ñu xool ban stratégie la ñuy jël comme Sonko ni mu ko defee bëggatul Macky Sall woo ko ci xeex ci mbedd bi ñu dem reyante Macky Sall profité ci ne élection du am moo tax Sonko bañ ko woowee jeu tribunal mu ne na ñëpp toog seen kër man loolu li ko wax laa def bàyyi leen di saaga bàyyi leen di nekk ci réseaux sociaux yi il faut que ngeen muus tuuti Sonko keroog loolu wax ci discours am avant ñuy jàpp gàddu kooram loolu la wax ah ñoom Karim Xrum Xax nekk fi def loo xam ne Macky Sall da ci profité jàppale waaye Sonko xamul ne ba muy wax loolu moom ay gàddu kooram dañuy ñëw ñoom tamit ne leen jàpp da ràpp ci kaso bi est ce que yéen may dégg Sénégal dëkku la la changement boo leen bëggee mu am nit ñi ñoo def du Sonko mooy changer Sénégal Sonko fay xeex ba xeex fu mu fu mu war a yem di arrêté li ngeen bëgg nag mooy Sonko dem di jàmbarloo Macky Sall ba ñu dóor ko fi bal mu dé. Pap Alé Niang ni tey japp nañ ko tecc. Cheikh Bara Ndiaye Yalla bu ñu ko faagaagal nit ñi il faut que ñu yew parce que sëriñ yi wara a wax waxuñu parce que sëriñ yi bëgguñu changement sëriñ yi Macky Sall lañu bëgg mu toog fi parce que. Macky Sall mi ngi fi xale taalibe yi ñu ngi ñu ngi dem di joxe euh, euh, addiya ñu ngi dem màggali ñoom loolu rek leen intéressé loolu rek leen intéressé ne l' essentiel yi déggal nañ leen waaye Sonko bu ñëwee lan moo leen wóor ne du changé xelu xale yi ba xale yi ah commencé gëm leneen lu dul tax lépp loo am rek jox ko si sëriñ loolu tax ma tuddee leen ay làppato kon bàyyi leen Macky Sall bi ngeen di vilipender chaque jour c' est vrai que Macky mi ngi def loo xam ne dafay. téye nguur gi <laughs> mais loolu loolu loolu mais c'est normal Macky def ko parce que Macky Sall yéene na ko bu ñuy nangoo nguur gi dañ lay tëj dañ lay rey Aliou Sall dañ koy tëj ah Mame Mbaye Niang dañ koy tëj Mamour Diallo dañ koy tëj euh, euh, nu mu tuddati général Moussa Fall dañ leen di tëj ah xamaa naa Meng dañ lay tëj Mamour Diallo euh, Gabi Sow ñooñu ñëpp Antoine Diome Dior Diagne ñooñu ñëpp nga jàpp leen di leen tëkku mais leen ngeen bëgg xam nga yenn patriotes yi def ci am ñoo xam ne vous êtes trop naïf gis nga àdduna doxewul noonu gis nga politique moo salte nee naa leen nguur kenn du ko joxe noonu Cheikh Bara Ndiaye waat na ne ne Macky Sall du toog 2024 mais dara wóor ko ci parce que Macky bu ko toog jaralee mu rey ay Sénégalais yu bëri ci lan parce que yéen a génn di manifester ñu leen dem leen ñibbi ngeen bañ a ñibbi ñu rey ci loolu gis nañ mu am ci dëkk yu bëri te dañuy ragal mu am Sénégal kon mënu leen waat Cheikh Bara lu ma ko gëm gëm gëm gëm gëm bu mu waat ne Macky Sall du toog 2024 ñun bëgguñu mu toog 2024. waaye bu ñu bëggul mu toog 2024 làppoto yi ñoo war a bàyyi seen seen dund làppoto bañ a xaar Sonko wax leen génn leen bu leen ko jaralee ni ngeen 2000 euh, coupe du monde bi ba ko Macky Sall gagné ci ci ci ci ci régime am la lañ gagné coupe du monde ngeen fees dell ci tali yi dem ba palais kenn waxu leen génn leen ngeen a génnal seen bopp. bu leen troisième mandat jarale dañ noonu ngeen di def boo leen ko deful Macky Sall danaan man sénégalais yi bëgg nañ ma bu demee cour constitutionnel cour constitutionnel ko mën nga def troisième mandat sénégalais yi toog fu ngeen toog mais Macky day bokk ci élection yi bu bokkee ci élection yi def li mu war a def ba gagné sénégalais yi toog seen kër mais noonu la leen makki Sall nar a naxee moo tax ma ne affaire bi bu Sonko Sonko moom lenn la mën joxe bakkanam loolu rek la mën joxe bakkenam dëkk bi tàkk mais est-ce que jar na ko est-ce que sénégalais jar na ko man bu ma doon président Sonko dama naan Sonko bul joxe sa bakken pour Sénégal bëgg nga nekk président defal li nga war a def waaye bu fekkee ne ñëpp dañu bëgg combat bi yow rek nga xeex ko président Sonko bu boobaa jaru ko Cheikh Bara Ndiaye ngi nii di sacrifié wu Pape Alé Niang mi ngi nii di sacrifié wu activiste yi nekk ci étranger bu fekkee ne Sénégal jaral na leen ko da ngeen di dellu Sénégal waxuma léegi de bu ko jaree bu ñu demee ba mu les na 2024 jot na comme ni nee ngeen Sénégal dafa ndara yàqu ba faw ne ku nekk dagg billet nga dem bu ñu leen daree jàpp ñu jàpp la bu ñu leen daree lu euh, euh, euh, mu tuddati nga bokk ci xeex bi waaw man loolu laa wala bokk au seen seen seen seen. show yi man waxuma ne Mollah Morgan li muy def du xeex xoo xeex la parce que Mollah wax dëgg moom nekkatul en sécurité kay soof li muy def xeex la nekkatul en sécurité Ousmane Tounkara li muy def xeex la nekkatul en sécurité mais ñoom Jiji li muy def xeex la nekkatul en sécurité mais nag Jiji nekk ci foofu rek di xas sëriñ yi affaire bi du sëriñ yi Sénégal yi li ñu war a dal li ñu war a yee dëkk bu yeewuwul nga bëgg mu def révolution day metti waaw fii ak 2024 daal nañu toog ñu seetaan waaw man daal li ma gis mooy na ngeen jéem a naxanteeg Macky Sall ba mu delloo leen nguur gi waaye nekk fii di tëkkonte dinañ leen rey dinañ leen def li c'est vrai rapport yi ñu génne lépp wane na Macky Sall ñoom ñoom général Moussa Fall vraiment dañu bëggoon jàpp Sonko ci affaire Adji Sarr complot bi moom dafa leer nañ loolu nag daf lay wane ne ñii xam nañ ne bu ñu ñax ñàkkee nguur gi maas maara day taale seen àddina day tukki ku mel non nak pour mu pour nga ñew fokati nguur ci mom day jafe len rek nga mëna def nga nako bal na la li nga def lepp nañu tok baña tar taal réew mi mais yeen patriote bi bugg leen comme bugg leen balé préparé wu leen ngeen xex bok ngeen génn ci mbéd yi ngeen xex lo rek fi sinon ay ay ngeen di dara doot té Macky Sall dina jaar sen kaw nax tok fi dëkk bi yakku waye Sonko bu ndaré jël nguur gi il faut que jàmbaarloo am comme ni mu ko waxee xeex bi di ñëw mooy xeex bu mujj xeex bu mujj nag bu amee euh, euh, dara dina tuuru lu bëri lu bari dinañ dee te loolu wax dëgg bu ñu sañoon du am senegal man nag li ma gis li gën a yomb mooy nañu jéem a waa Macky Sall ba ñu delloo leen suñu doom gars yi laaj leen partagé la abonné leen Sadio Mané nag moom football football la rek xëy na yàlla mooy wan Sénégalais yi ne affaire football affaire caaxaan la kon xëy na gaañu Sadio bi arrangé wul Macky Sall mais Sénégal de façon ñun footballeur yi ñu am même sans Sadio Mané mën nañu sori ci coupe du monde laaj leen partagé leen abonné leen beneen monsieur Cheikh ñu defal leen vidéo bi le président Sonko bi vidéo askan bi le Sénégal merci merci.